ñu ànd ak El Hadj Assane Gueye yaatal xabaar yi ci wolof El Hadj asalaamaaleykum. sëñ Fall maa ngi lay ziar. delloo ziar foog naa yow. 99 nga aji woon de. <laughs> ba jamonoy Air Afrique bu njëkk ba. <laughs> boobu tout tànk laa woon. waaw moo tax eh, li mu wax ci wàllu aji moom. Mhm. xam nga am jaar naa gerte béy. jaar invité de roi xam naa la fa ne moo tax ma dégg yéen xibaar ci njëlbeen ma yëglu kenn faalewu ma mu ngi noonu de xamoon naa ni dina yomb ca mu ngi noonu taayit 99 euh, ba ngay dem hmm. euh, ginnaaw dañ ni armal lu juróom-ñaari mètre la nga laaj fukk ñun la noonu lislaam nee na juróom-ñaar la <laughs> jërëjëf sëñ lu mu gën a euh, laxasu rek gën a baax xam nga góor ñi tàmmuñu wodd donc Fall ne du ma la nettali mun na mun na gars yi dañuy yëndoo foofu koddaay ya ëpp nettali <laughs> jaajëf mbokk yi ñu ngi leen di jéggalu bu baax di leen gërëm di leen ziar di lu seen ànd ak ñun saa su ne RFM rajo Futur Média xibaar yi ak assises yi doon amal ci jam ñaajo jagleel ko wàllu yoon nees mën a def ba indi ci yeesal gën ko dëppaleek jamono tey jii euh, la yekk yàq lañ fa doon togg yëpp ci wàllu liggéey bi euh, ca jam ñaajo ci ndaje mu yaa lay doon xibaar yi bokk na ci it cocaïne beneen bu ñu tegati loxo ci wàllu sinébar gi euh, ginnaaw fi nga xamante ni mooy Kaffrine Fatick fanweer ak ñetti kilo kilogramme yi cocaïne boo xamante ni teg nañ ko fa loxo ñett it ñun ca jàpp aj màkk gi. ginnaaw ay jafe-jafe ki xat-xat euh, dafa mel ni borom baa ngi def jàmm yëf yi dellu na na woon fa woon ci wàllu tukki mi ci roplaan yi euh, ginnaaw taxawlu ab comité euh, bu mayee kon ni ñu ko waxee ba fi ñuy wax ak yéen lu toll ci fukk ak juróom-ñetti roplaan ba woon na fi fukk ak ñett diyu Flynice Flynas ngeen baal ma Flynas di compagnie aérienne bu xeetoo ci Arabie Saoudite Abdoulaye Diop ne ci technique bi digital geeg may sa mbay tey ci talaata ji ca jam ñaajoo la nu fay daal di yàq lañ doon togg boobaak léegi ci wàllu liggéey xeltu ñeel wàllu yoon ak nees mën a def ba yeesal ko dëppaleeg jamono gën ko jubaleeg askanu Sénégal ñu fàttali ni président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, moo daal di euh, amoon mbébét googee jëm ci wàllu yeesal yoon fexe ba mu gën a dëppoog askan waak la ñuy xaar ci ci moom euh, boobaak léegi ña nga ca thème bi ci waxtaan ak sumb gi mooy wàllu réforme gi ak modernisation dinañ kon ni ñu ko waxee rëdd yu am solo yéen fa daal di taxawal ngir liggéey beeg na ko njiit réew mi bëggee nees koy defee ba yoon euh, wuyu euh, boppam. ñu des ak yoon ak kuñ naan Alassane Fall Alassane bu Sonko mu ngi ci gardaa yi démb ca division investigation criminelle tey jii lañu ko war a jaarale ci kanamu procureur moom jeune la bu bokk ci Pastef euh, lañu ko toppee mooy ñàkk war ma jëmee ci magistrat ñu fàttali ne dafa defoon vidéo naan procureur ak juge yi su fekkee Banguène Ba Diakhaté ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndao dinaa nangam. looloo ko jural jàpp gi RFM 8h04. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ginnaaw ñaari fan yu ñu tegoon Sinébar ca Kër Ayib diwaanu Saloum brigade mobile douane bu Fatick yi teg na fanweer ak ñett yeneen i kilogramme yi cocaïne ci ngulul soriwul ak ganjaay drogue boobee nag dañu ko nëbboon ci ay sachet ci woto Mercedes bu immatriculation bitim réew ñett nag ci doomu aadama jàpp nañ leen ci boobu ñaawteef Aminata Goudia bi opération bi nga xam ni moom moo tax ñu teg loxo drogue bu ni mel ñu ñi ngi ko amal altine ji laata fukki waxtu benn di jot ci sécurité ci commune bu Mbélacadiao lañ ko amalee ñi nga xam ne nag ñoom ñooy douaniers yi bokk ci brigade mobile des douanes bu Fatick te nga xam ni ci subdivision des douanes la ñu bootu ci njiitalu lieutenant colonel Mamadou Alpha Dieng ñoom ñoo jàpp lu tolloo ko fanweeri kiloy cocaïne ak ñett drogue dure boobu nag ne ñu ñi ngi ko dencoon ci ay sachet yoo xam ni dañ ko rangé woon ci benn oto Mercedes oto bi nag nee ñu immatriculation bi ci nekk bu bitim réew la buñ sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ni service communication douane moom moo ñu ko jébbal nee ñu nag ci xayma xaalis bi nga xam ne moom la drogue boobu waroon a jar mi ngi toll ci 2 milliards 700 millions de francs CFA ñetti nit nag jot nañu leen teg loxo ngir ab ñaari fan ci ginnaaw douanier yi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kër Ayib ci département bu Nioro itam jàpp nañu cocaïne opération yi nga xam ne nag moom la ñuy def nee ñu dañu bëgg gën a xeex ni moom moo di trafic drogue di ko jaarale ci yoon yu mag yi nga xam ni moom la ñu tuddee corridor ay pexe la yoo xam ne nag douane sénégalaise bi weeru janvier bi weesu la ko tàmbali Aminata Goudia bi Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ñu waxtaanee aj màkk ak ren gi 2024 ak euh, lu jëm ci jafe-jafe yow woon na koy xat-xat ci wàllu tukki mi ci jaww ji ak i roplaan ak tardé gi loolu lépp daa mel ni borom baa ngi def jàmm ba lu ca bari saafara am na ca fii nuy wax ak yéen fukk juróom-ñaar ci roplaan ba woon na fi fukki ak ñett di Flynas papa euh, ngeen baal ma Amadou Sabax Ba. ñetti fan ñu nekk ci njàqare waaye dina dinañu mujjee wax la bayka laaw ma la bayka ca dëkk bu sell bee di màkkatal mu karrama ñoom ujaaj yi nag la leen dal kenn tegu leen ko woon ko dul compagnie nationale bii di Air Sénégal waaye nguur gi def na ci ay jéego yu am solo ba ñoom ñëpp dinañu mujjee dem xibaar bi tukkee ci directeur général adjoint bu délégation générale bu yor wàllum pèlerinage bi Ousmane Ndoye. luy avion bu bees mu jàppale ñu fly naa ñu discuter moom luy ak moom ñëw jàppale ñu. pour mu mën a li fi nekk. waxtu ñu mujj impacté mooy ñi ngeen dégg ñuy kaas nii ñu ba ma fay jógee ñu ngi enregistré pour jël avion bi dem ngoon bii dem Fly Nation bu doon appareil ñu luwee mooy avion bi mu ngi en place les autorisations qui font ont été trouvées l'équipage ñu nga fa donc avion bi day dem tey loolu jeex Fly Nation moom yeneen ci topp moo ko yóbbu ak toujours néew Air Sénégal bi pour que le huit dernier délai bi ñëpp mën a dem mag lii yëpp nag ab benn dispositif boo xam ne ne jëwriñ bi ñu dénk wàllum transport aérien El Malick Ndiaye ko ba mu jàmm ñoom yëpp dinañ dem balaa app wi jot Ousmane Ndoye délégué général adjoint di dalal xel yi. Air Sénégal bu doon yóbbu trois si ñaari ci ñaari appareil te benn bi rek dem di yóbbu trois cent et quelque yóbbu quatre cent jël na quatre vols yoo xam ne yi euh, dafay mel ni l'équivalent de six à sept vols d'Air Sénégal et au moment où je parle il dix sept vols qui sont déjà partis sur l'année et sur les dix sept vols qui sont partis Flynas convoyé na ci pour quatre mille Air Sénégal en a convoyé pour bu ñu réglé problème mu tey réglé. suba avec l'arrivée de tous les appareils c'est terminé incha allah rabi dootul am problème là je regarde les sénégalais droit dans les yeux wax leen ne lii ministre bi tegoon en route fonctionné na ba résultat bi bu subaa ñu xam ne dootul am suba ku jooyul woon suba dootoo lii ñu dund bëri ay njàngat lool ba tax na délégation générale bi yor wàllum pèlerinage di wax na ne dina jël ay matuwaayam yépp ba dellu si bi yaa ji mën a ñibbi si jàmm ba du am benn rëq-rëq comme ni ñu ko dundee ci dem bi. jërëjëf Amadou Sabax yàlla na yàlla mottali ñu waxtaanee leneen ak euh, nekkinu soxna yi nga xamante ni seen i borom kër dañoo dëddu ak euh, seeni doom di jirim yi ab diir a ngi ñuy daw ci ginnaaw yi pension nu ci joxoñ kër gi euh, di neex Euh, dañu ciy déglu kenn ci ñoom soxna Oumou Sall Diouf ak Abdourahmane Diallo. ñetti weer a ngi nii man maa ngi daw sama rappelu pension de veuve mun ma fexe ba jot ka te FNR ñoo ma woo ni ma kaay jël kër disponible na ma wax leen nañ ma yóbbu trésor trésorerie général fële ma fayoo ko fa ma dem ñun ma duñ ma fay ndax kii bi dikkul euh, bulletin bi dikkul. fin mars fin avril ba fin mais ñi ngi may dawloo nee nañ ma du man rek waaye machine bi moo paan te boobu temps ñi ngi koy defar. machine bi moo paan mënuñu si dara ñu ngi koy defar man nag damay ñëw wootu si wala maye ñu ñu ko saraxuñu ko àbbuñu ko ñun ñoo ko moom c'est un droit comme ça xëy na njaboot gi man ak ña ña bokk njaboot gi mën tabaski si jàmm. naa jox itam yeneen preuve ma tey jii loolu du réglé wu Euh, fexe nañu jokkoo ak directeur des pensions antuwul du ñàkk ci yeneen ni jamono wàllu njàng mu kawe meeg xibaar bi nga xamante ni ministre bi ñu dénk njàng mu kawe moomee docteur Abdourahmane Diop fësal na ko ci lël ca Saly Portudal junni ak juróomi téeméeri enseignant yu nu am yéen jël ngir université yi Sénégal waa SAES e ñoom ne euh, duñu ko yemale ciy wax danuy xaar ak i jëf ci jàpp nu sax ne loolee neb lim doy na ngir mbooleem université yi ci Sénégal ci it euh, ci weneen wàll ñu ngi ñaan ministre bi mu wax ci wàllu kon bi na muy amee ak ci yan jamono waa des ñoom defuñu lu may rafetlu ko tàccoog ñaari yoxo ndongo kaa waa syndicat autonome de l'enseignement du supérieur ni tollootuñu nag foo xamante ni dañuy tàccu ab ministre ci ay wax yi kese ñoom waa SAES e jàpp ni nag recrutement 1500 enseignants yi ci université yi ministre bi waru woon yem kese ci def ko ak déclaration waaye waroon na cee wax tamit naka la ak nan la koy defee David Célestin Faye mooy secrétaire général bu SAES. E ñun dañu dépassé annonce il faut que ñu wax ñu kañ lañ koy recruter soo xoolee mesure ñuy wax yëpp amul benn buñ ci wax ni da à part ko du ministre moo mesure amul date la wax na ñaata la baax na mm. mais moo ñu ëppal solo. waa SUDES ni ñoom seen xel dal na ci annonce bi docteur Abdourahmane Diouf daal dee def ki yore seen kàddu ne bi la dogal nag doon na revendication boo xamante ni seen syndicat bi da cee mës a am taxawaay professeur Nazir Sarr. SUDES moom dafa ni woon at yàlla ci gannaaw nañu recruter juróomi téeméeri enseignant at mu nekk bu mu mat cinq pour ñu xool. SUDES aussi dellu si waxaat loolu ci ay calcul la taxaw nag ba avancé chiffre bi mooy junneeg juróom téeméeri enseignants yu ñu recruté daar daar daar garab bi même bu ko rattrapé ko jógee secrétaire général bu SAES e ni gouvernement bi dafa war a xam ne nag tàng bu ñuy perdre nag moo daal dee amatul docteur Célestin Faye mi secrétaire général boobule syndicat ni fi mu toll ni nag université yi jàngalekat yeeg li ñuy dékku ci étudiants yi foo ko natt ci ay jafe-jafe rek daal yi un vingt la waroon nekk UNESCO un vingt la Sénégal ñooñu quatre fois plus donc soo xoolee mel ni ku naan bu kenn xaddi ndax fi mu toll nii kat yaakaar daal dinay juddu professeur Nazir Sarr ni nag ak ni yëf yi demee lépp mën naa baax SUDES aussi dafay yaakaar ni loolu doyul dafa dellu siwaat ci li mu waxoon ni nañu jël mm. juróomi téeméeri enseignant at mu nekk bu mu nekk juróomi at ñu xool dina tax système bi soufflé beneen poñ bi nga xamante ni syndicat enseignement supérieur moo di fexe nag ba tabax yi nekk ci campus pédagogique yi teewu noppi ñu daal di koy def farata ngir mu daal dee jàppandi fépp nag ci université yi nekkee ci biir réew mi. ndongo jërëjëf ba tey ci xibaaru suba seeg RFM sa Niang mooy directeur bu SCI la pro mobilière euh, moom nag àndul ci tuuma yi nga xamante ni yi bokk ci association Touba Renaissance teg nañu ko ci kaw ku mel ni euh, promoteur bi di Mbakiou Faye euh, moom sa Niang ne depuis 2012 ONAS jot na lépp luy ay liggéey ñeel wàllu assainissement ca wàllu euh, mbir meek coow li ay avocat am ñu ngi topp dossier bi ñu déglu ko Maysa Niang ak Mouhamed Diop. service après vente nag amul ci promotion immobilière beneen bi nee nañu dañu war a defaraat tali yoo xam ni expert bi nee na tali dañ koy defaraat ay tali yoo xam ni nee na sept centimètres d'enrobé euh, de de de de couche de bitume xam nga loolu boo ko déggee mooy tali enrobé dense xanaa peut-être que doon wax dafa jaawale ak tali azéruti ñun bicouche la wax moom la ñu engagé te bicouche dépassé wul trois centimètres waaw bu ku ñu bëgg a fayloo un ay tali danañ nga ko wékk donc expert boobu nga xam ni rapport am bi mu koy def dugal na ci ay kaw football yu ñu yàq ak ay yu kenn xamul donc kooku duñ fi nekk di xalaat naan li mu def euh, tegu na ci yoon wala déet loolu dinañ ko contrer feneen fu ñu koy contrer ak suñu avocat yi beneen mbir bi ñu wax nag ci affaire tali yi bon tali nag waxoon nañ leen ne leen tali foog ngeen koy entretenir mënu leen da ngeen di jël ay suuf ndawt bu tawee ndox mi nawet bi tuuru ci euh, ndox mi jàll day pant la day indaale suuf su ko defee suuf si day recouvrir tali ba mel ni fii kenn mosu koo defar ndax am na ay cité yu ne foofu ca foofu deuxième tranche bi boo fa demee gis nga liggéey bi ñu fay liggéey donc leneen leen li nga xam ne ñi ngi koy wax ci affaire suñu autorisation bi ni ñu ngi defar ay immeuble ñoom am nañ droit defar ay immeuble ci seen i kër cent cinquante mètres carrés ak deux cent mètres carrés mais ñun moom amuñu droit def immeuble dañu am autorisation depuis boo xam ni mi ngi wax ni que ni foofu ci espace central boobu ñuy wax war na am ay immeuble ak ay équipement bu ñu demee bay wax nit ñi suñ ko waree topp ci yoon ko ko wax dinañ ko jépp ci yoon. ñu waxtaanee nawetab ren beeg njaaxlem yenn ciy béykat ba sànq danoo seenul ak i gët lii di njiw meeg engrais yi muy àndal ñoom daal jaaxle ndax nawet bi soreetul am na sax gox yenn yu ndox tuuru ca séddale meeg anam yu bees yu ñu ci dugal daal dalul seen xel ana Rocha. ca Sine ba fu ñu toll nii aliment de bétail dong la ñu jotagum loole waral baykat yi tàmbalay jaaxle Cheikh Tidiane Cissé mooy secrétaire général agriculteur du bassin arachidier. semaine bi nga xam ne moom lañ passé nañoon nañu ne engrais baa ngi ñëw ak euh, semence su gerte bi engrais gerte bi ak semence gerte bi mais bi may wax ak yow jotaguñ dara commission yi nag ñu ngi toog di xaar mais lii problème bi nag mooy que ne ah niñ doon séddale dañ ko changé c'est vrai que carré yi dañ doon gonfler carré yi ba nga xam ne des fois dégg nga ni mu doon ni mu ko daan joxe baykat yi pour mu ak si ñoom pour baykat bi am ci lim mën a euh, jëriñoo pour mën a faire face ak hivernage bi daf daan xaw a am problème léegi ñu changer ko indi individuel inscription individuelle mais inscription individuelle bi je pense que ni sax moo gën a bon carré parce que inscription individuelle bi ne état war na fi mën a indi tonnage bu nga xam ne baykat bi dana si mën a jot lu mën a doy pour mu mën a jàkkaarloog nawet nawet bi. Bassirou Ba moom moo jiite mouvement aar suñu moomeel mu ngi fàttali ministre de l'agriculture la mu leen diggee woon ndax situation bi fu mu toll nii mën naa am ay njeexital bu baax a baax. amul benn ndaw boo ne jot nañu ko mu dëggalal ñu xibaar ne. am na seko bu commencé joxe ci réew mi li nga xam ne moom mooy intrant yi ci sous préfecture yi ñu communes yu bëri xamaguñu kan lañ notifié comme opérateur mu war fa joxe jiw dina tax ki nga xam ne dafa yaakaar ci jiw wi nga xam ne état moom rek lay subventionné ñu yaakaar ci pour bay ko dina indi nji mu ndaw nji ndaw boobu nag ñëpp xam nañ ne meññeef bi duy demee noonu waaye bu meññee ba pare dafay oyof lool loolu nag dina tax bu ëllëgee buñ ci yeggee ñoom seen chiffre yooyu ñu joxe di estimer meññeef bi jee bi tukkee ci kaw gi du demee noonu le disponibilité euh, jiw gi ak engrais yi kon ba fu ñu toll nii mu ngi woy di nekk jafe-jafe ci baykat yi loole waral ñu bëri ci ñoom nag tàmbale am tiitaange ak jaaxle ndax li nga xam ne moom la mën a jural seen activité yi jërëjëf Anna Rocha opérateur privé stockeur yi dalal xel yi ñu ca fare ci zone centre bi ñoom nee na njiw meek euh, la muy àndal ci wàllu mbay mi yëpp dina yemb euh, laata ndorteeluk nawet bi ndax rëdd nañu fa yëpp war a jaar euh, kon euh, ba mu war a egg ci loxo yi ñoom yooyu OPS euh, Babacar Diouf. ki dëggal xibaar bi du kenn ku dul coordonnateur opérateur privé stockeur yi nekk ci zone sombre. xaalis bi mën a dugg ak banques yi aussi comme jox nañu assurance ne dinañu accompagner ci campagne bi déjà commencé nañu certains sax d'ailleurs ñu ngi def mise en place. non non non en ce qui concerne li ñu warloo ak engagement yi ñu jëloon moom ñun dinañ ko motal bu mu mot sëkk. Euh, li ñu war a def ci engrais ak ak jiw moom li ñu ci war a def euh, dinañ ko def incha allah. béykat yi di dinañ jot seen jiw ak seen i engrais ci fan yu néew. depuis deux jours jot nañu commencé ñu jot notification ak planning yi nga xam ne nii euh, ci lañ ko war a yóbbu ak engrais bi yëpp jot nañu notification waxtaan nañu au pré avant loolu ak le premier ministre ci conseil interministériel ba mu jox ñu ay assurance ne. Euh, dina commencé fay d'ailleurs il y yu dugg ci euh, li mu waxoon. conseil municipal bu Patar bi mu jiite nee na tamit dina def délibération ci ay parcelles yoo xam ne nii fa nuy sotti mbalit yi nga xam ne ñooy duggee ci ñooy tukkee ci commune am mu ngi ko xamle ci jamono ji ñuy defal journée set setal nationale bi nga xamante ni président ay fay moo ko woote. Euh, d'ailleurs am na ci luñ ci waxtaan sax war a def ay délibération. pour que ñu mën a am ay ay ay yu mbalit. Bombay RFM Babacar Diouf. RFM mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ci rajo Futur Media ñu koy tàmbalee ak séance d'entraînement bu gaynde yu Sénégal yi ñu ko doon amal ci altine bi ci terrain annexe bu stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio septième séance d'entraînement bu gaynde yi di waajal rencontre yi jëm ci wàllum qualification coupe du monde 2026 seen digganteek république démocratique du Congo waaye tamit euh, diggante euh, Sénégal ak Mourabitoune yu Mauritanie muy séance d'entraînement boo xam ne presse bi woon nañ ko waaye liñ ci nemmeeku moom mooy am na benn forfait déjà ndax Sadio Mané international sénégalais bi nekk ci club bi di Al Nassr ci Arabie Saoudite du ci bokk ndax am nay gaañu gaañu. Pape Malick Diaw teewoon na entraînement bi. équipe bi mi ngi presque au complet ak teewaayu ki nga xam ne moom moo di Kalidou Koulibaly Sadio Mané moom moo bokkul woon ci li nga xam ne moom moo di séance d' entraînement moom mi nga xam ni dafa daal di forfait ci yi la ñaari jongante ñu jëm Habib Diarra ak ki nga xam ni moom moo di Arouna Sangante moom Lamine Camara itam bokku ca woon moom mi nga xam ni barrage la amaloon ak équipe am di Metz ca France séance la boo xam ne mi ngi tàmbali 17h37 ak kaddu gi nga xam ne daal dina koy jël ñu teg ci ne ni moom moo di échauffement ak ay touru terrain ci ginnaaw nag lu bees amul ay atelier lañ ci daal teg daal koy tëjee li nga xamee ni moom moo di conservation ballon 19 heures 5 ak opposition bu yaatu boo xamee ni ci teewaayu duo bii la di Aliou Cissé ak Pape Thiaw ci boobee jamono Tony Silva moom di wéyal liggéeyam ak gardien de but yi Nampalys Mendy moom ci booram la daal di entraîné ci jeexitalu entraînement ba ki nga xamee ni moom moo di Moussa Niakhaté dellu siwaat na ci absence bi nga xamee ni confirmé na mooy bu Sadio Mané donte gëm na ni équipe bi war na mën a doxal sans c'est le meilleur joueur. Il y a vraiment d'excellents de, joueurs euh, dans cette tanière. C'est vrai que Sadio euh, est irremplaçable, mais ça sera le moment aussi, de, je pense, pour certains joueurs de, de montrer ce qu'ils qu valent. On se doit, même euh, sans Sadio ou même d'autres joueurs qui, qui, pourraient être absents parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, de remporter les matchs et de montrer que le Sénégal, c'est avant tout un collectif et pas des individualités. C'est sur ça qu'on va aller dans l'avenir, remporter des, des matchs, remporter des compétitions. Et une compétition, ça se gagnera même pas à 11, ça se gagne à 26. moom mi nga xamee ni ku bees la ci tañeer bi di Chérif Ndiaye jot naa yëkkati ay kaddu ci li nga xamee ni moom moo di teewaayam ci wàllum équipe nationale gëm na ni nag war na mën a dëggal boppam donte bu mënul dugal li gën moo di mu fexe équipe bi am ñetti poñ. j'ai pas manqué pour arriver ici j'ai fait mes preuves c'est pour cela qu'on m'a appelé je pense que ça soit les jours d'avant ou autre ça c'est moi Chérif Ndiaye Je suis arrivé en pleine confiance et je vais le prouver. Que je marque ou un autre attaquant marque, l'essentiel c'est de prendre les trois, les trois points. Là, on a deux matchs très importants pour, euh, pour le peuple et Donc, ce qui est plus important, c'est les trois points, de prendre. Si on l'opportunité de mettre le ballon au filet, on va le mettre. Si on pas l'opportunité, on va essayer de faire gagner l'équipe. C'est le plus important. tañeer bi kon dina tëjaat ay buntam amal ay séance huis clos nga xamee ni moom moo di veille match bi moo di juróomi fan ci weeru juin nar dox seen diggante ak RD Congo ci troisième journée éliminatoire coupe du monde yi foofee nga xamee mi dem ca Real Madrid joge ca Paris Saint-Germain capitaine bu équipe nationale bu France moom nag euh, day ñëw libre maanaam nekkuloon ci contrat moom numéro 9 lañ koy jox mu sol ko numéro bi Karim Benzema doon sol mu xaatim contrat bu juróom juróomi at ci euh, club bi di Real Madrid jeexale rugby saison 2023 2024 fédération sénégalaise bu rugby bilan bu satisfaisant la tiré ci jongante at mi naam amoon nay quelques jafe-jafe lu toll ci juróom-ñeent fukki match lañ jot a muy nag loo xam ne baax na lool ci athlètes Sénégal yi tamit daal dinañu koy amal atum ren muy loo xam ne neex na lool Madiagne Niang mooy responsable bu communication bu fédération sénégalaise de rugby. bilan bu positif la ñu tiré su soxal li nga xam ne moom mooy saison ndaxte mën naa jàpp ni yombul woon ak euh, anam bi nga xam ne moom la réew mi nekkoon nekkoon si ay jiixi jaax ak jafe-jafe yu soxal wàllum politique yi nga xam ne moom moo si amoon mais alhamdulilah jeexal nañ ko si anam bu baax ak ASFA bi nga xamante ne moom moo gagné final moom moo la tamit pour ñu encourager ñi nga xam ne ñoom ñooy direction technique ak euh, direction administrative si kaw nekk commission d' organisation des compétitions nationales parce que quand même yombul woon mais def nañ seen kéemtalaay kattan ba organiser li nga xam ni moom mooy compétition bi boo xoolee ren daanaka jongante nañ ci lu toogante ay euh, match euh, juróom fukk ak juróom-ñeent muy 90 donc loolu day tax équipe yi dinañ am ay match yu takkoo takku jour yi tamit dinañ am ay marché takkoo takk loolu dina tax ba si lu soxal li nga xamante ni mooy seen progression dina nekk loo xam ne lu am solo la beneen mbégte bi ñu am mooy dellu si waat championnat du Sénégal bu rugby jigéen ñi te dañ koy joué si juróom-ñaar donc loolu tamit lu am solo la te ren ñeenti équipe ñoo si joué woon euh, tax na tamit am na ay match yoo xam ne amal nañ ko on verra que ni peut-être ni année prochaine dinañ xool ba xam dañ ko mën a yokk wala sinon ñu xool ba xool na lañ koy préniser parce que loolu dafa am solo beneen défi mooy ñu def suñu kéemtalaay kattan ba équipe yi nga xam ne ñoo nekk si région yi ñoom it ñu mën di championnat que ça soit équipe bi nekk Casamance que ça soit équipe bi nekk Koutal ak euh, au niveau de la Petite Côte Somone Euh, Sali donc loolu tamit direction technique bi dina si def comme teel kàttanam ngir liggéey si lu si war ngir jéem a fexe ba équipe yooyu noonu ñoom itam ñu mën a di joŋante donc dans l' ensemble nañu wax ni saison bu am solo la woon. Madiagne Niang kii yor Jokko fédération sénégalaise de rugby moom lañ doon teewlu mu doon addu ci micro Pape Malick Diaw mbokk yi. fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi di leen gërëm bu baax a baax ci teelu bi. jërëjëf Mouhamed ñu ànd léegi ak Anna Kosa ci chronique culture bi. maa leen di nuyu mbokk yi ñu wax lu soxal musique ak artiste bi di Mame Dji Rassoul présenté ni ki euh, ajuma ji weesu ñeenteeli albumam mensonge mooy turu albam reggae bi nga xam ne mu ngi am fukki titre ak benn. donc nag ñun tey si suñu xeex bi ñuy xeex nii dañuy xeex pour dëgg. nekk si place parce que dëgg rek moo mën a dimbali nit ki pour mu avancer si dundam. politique parce que ñu on subit tey jii kii wa parle du reggae wax du politique parce que ñoom ñaar dañuy dañuy dañuy ànd daal que que nos aussi ñuy gën a respecter seen i promesses boo dégloo si son son monsieur le président mi ngi si. Mm-hmm. ñu gën a yërëm seen askan. ñuy gën a déglu seen askan parce que nag. le pouvoir appartient au peuple rappel la bu ñuy def suñu homme politique yi ñu xam ne mën nañ sol costume mën nañ tooj seen i mbagg mais ñu xam ne le pouvoir appartient au peuple. ci production musicale bi artiste bi mu ngi woo itam booloo ci Afrique waaye itam justice climatique ndax dafa jàpp ne jàmm ak climat mooy combat yu gën a mag ñu war xeex ci àddina. ñi ñuy wax tout le temps ñu changement climatique te ñi ñu koy gëmloo bu ñuy voyage ay valise nucléaire la ñuy yor ay avion la ñuy yor euh, ñoom ñooy les gros pollueurs ñoom ñooy ñoom ñooy polluer àdduna bi après ñoom ñooy taxaw dañuy wax naan waaw lii waaw lii waaw lii tey boo xoolee si si si si si géej yi géej yi tey fépp océan Atlantique am kër yi ëpp ñu koy moom ñoom la te bu ñuy tabax dañuy agressé l'érosion dañuy agressé géej gi si lu bari boo xoolee garab yi garab yi nekk tey jii si àdduna bi bois bi ni ñu koy daggee ñoom la seen ñoo koy dagg pour seen industrie moo tax mm, c'est un gros mensonge moo tax ma ne il faut que moom benn justice climatique talaata ji nag euh, AMS association des métiers de la musique du Sénégal moo woote ab euh, atelier euh, jëm ci wàllu protection sociale des musiciens waaye itam képp kuy yëngu ci wàllu spectacle vivant mébét bi kon mooy waxtaan ci lu jëm ci nu ñuy fexe daal ba artistes yi wala bokk professionnel de la culture yi gën a mën na gis seen bopp ci biir société bi lu jëm ci seen wàllu ak ak yelleef mbokk yi fi lañu yem ci seen chronique culture di leen euh, jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM. Soumari.com ak direction de la santé mère enfant. ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf li ñu naan boo yonoon la àttanul yoon wu ne da nga fa jaar dafa mel ne loolee mooy bëgg a dal état bu Sénégal yëral xët mu njëkk l'Observateur subvention gi gouvernement bi def ci njëgu courant bi def ko ci njëgu gasoil bi def ko ci njëgu gaz bi mu toll ci juróom benn téeméeri milliards at mu nekk l'Observateur ne nañu moo fatte état bi jamono ji journal bi gis ci ay sacrifice yu nguur gi ngir courant beek produit pétrolier ak gaz butane bi seenu njëg mën a yomb ci askan li tax mu tar ci kilifay réew mi bi ne nañu bokk na ci xaalis amul ci réew mi waa taxaw sikki mu yu Sénégal yi ngir ñu teggi subvention yi ci jamono jooju askan yi ñi ngi taxaw ci wet gi ñoom di xaar yëf yi gën a yomb lu mu woyof rek gis nañu ne des na saa suñu xëyee di sàkk ñu wàññi njëg yi enquête nañu rax ci dool ñoom Sonko ak Jomaay temps de grâce gi ñu ne moom lañ leen di may ndax dañuy soog a yegg si temps de grâce ba daanaka ci tuñ rek ndax ci ñaari weer fi jot a def enquête gis na ne nit promesse électorale jëfeeguñu ko boole cekkit seen communication bokkul fu mu jëm lu jëm ci ni ñu tàmbalee ñoom ñu yees ñi ci bopp réew mi lii quotidien gis na ci ay gàkk-gàkk jàpp yi ñu jàpp nit ñi ak tëj gi ñu leen di tëj lu ci mel ne kaabu ba ak kaabu imam Cheikh Tidiane Ndaw yi ñu fëgg démb ñetti weeri kaso ci la bokk Dora Gueye mi ñu yóbbu ca kaso ba ci la bokk ci jamono joo ne yéenekaay bi nee nañu li ñuy xaar ci ñoom du loolu li askan wi di xaar ci ñoom mooy ñu sàkk ay pexe jiite woon ni jamono aéroport international Blaise Diagne di AIBD moom la ay leeral la xëy ci recrutement yu bari yu ñu ne moo am ci AIBD Abdoulaye nee na bu fa ameet moom bàyyiwu ko fa point actu nañu 182 agent la Abdoulaye Dièye mësa recruter ci aéroport te li tax mooy dañoo ubbi ay aéroport yu bees ci réew mi soxla ay nit ñu ko doxal tax mu recruter leen te ci agent yooyee mu recruter am na ci lu mat 161 prestataire di téeméeri prestataire ak juróom-benn fukk ak benn yoo xam ne def nañu lu ëpp fukki at ci aéroport di xaar ñu embauché leen journal bi dolli ci di ñu xamal ne Abdoulaye Dièye ba mu jugee ci AIBD 905 agent la fa yu ñuy wax nee na fu ñu jugee ndax moom bàyyiwu leen fa woon ñu bàyyi coow loolee te wax ci aji màkk ak ren geeg coow li ci am le téema ñi mi ngi ñuy xamal ne ab ujaaj li mu baaxoo mooy su demee màkkatal mukaram sànni jamra ngir toroxal seytaane lapide ko waaye ren ji dana bari ujaaj yi Sénégal yoo xam ne bu ñuy sànni jamra Air Sénégal la ñuy lapide ndax coono bu mu leen teg am na sax ñoo xam ne le téema ñu nee nañu ci aéroport la ñu tàmbalee lapide Air Sénégal Alioune Badara Fall mi jiite Air Sénégal sur soit nee nañu mu ngay dund ay waxtum yu mujj ca bopp compagnie ba ujaaj yi Sénégal yi Air waroon a yóbbu te defu ko yéenekaay bi nee nañu ñu bari ci ñoom compagnie bi di Flynas mujj yóbbu le témoin xëy ñu yóbbu ci waxi parti politique bu bees bu ñu ne moom la Amadou taxawal journal bi taxaw ci di ñu indi ay leeral nee nañu Amadou donte dafa ñàkk élection présidentielle yi di xaar ndax dafay génn biir APR taxawal parti boppam parti bi ñuy wax ne da ko taxawal tuddee ko RSE loolee amul RSE di rassemblement pour la solidarité et du parti politique waaye mouvement de soutien la mouvement la bu doon jàppale Amadou wax ne moom leader de l'opposition bi mi ngi nas stratégie stratégie bu trafiquant de drogue yi nas rek duwaañum Sénégal teggi ko Le Quotidien nañu trafiquant yi duñu sonn waaye duwaanum Sénégal yi du sonn du tay ne ginnaaw fanweeri kiloy cocaïne yi ñu jàpp keroog samedi ca kër Ayib duwaan jàppati na fanweeri kiloy cocaïne ak ñett démb ca gànjaay fa la ko jàppe ñeenti duwaañ yu gàddu móoli cocaïne taxaw photo bi mi ngi ñuy seen ci xët mu njëkk réew mi ñu ci Walf Quotidien ak laxisme maanaam ak bàyyiliku gu am kon na ci tax trafiquant de drogue yi ñeme Sénégal commissaire Cheikhna Keita mi fi jiite woon jamono OCRTIS di ñu wax ci xët mu njëkk Walf Quotidien drogue bu bari bi ñuy jéem a dugal ci réew mi dafa am ñu ko soxla ci réew mi ñoo xam ne dañ leen a war a alimenter. Soumari.com ak direction de la santé mère enfant ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed euh, ci lu wér <laughs> Ndiaye moom. Ablaye bu demande bi forte rek c'est parce que am na ñu def commande ñooñee nag ñoo jëre wër ci mim réew xam naa ab Ablaye bokku ca jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar la woon ak RFM bokkoon na ci ne ay xibaar wàllu assise yëpp yi woon euh, ngir yeesal justice ci Sénégal gën ko méngale ak jamono liggéey baak euh, lañu seqoon ne xeltu yëpp borom yi xam-xame expert ak euh, ñu ca xam tey ji ca jam ñaajo nag la ñuy yebbi lépp cim ndaje seen biir ngir xool lan la ñuy proposé ne ay saafara ay yeesal monsieur le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye drogue bi ni ñu ko waxee ci yéenekaay yi ak it euh, la ñuy jàpp boobaak léegi lim yaa ngi bëgg a bari euh, gëcc mujj ca Fatick la fanweer ak ñetti kilogramme yi cocaïne ña nasoon pexe moome bu nu rëccoon ñaari milliards juróom-ñaari millions euh, ci xaalis bu bon. Euh, xam naa du bon ci ñoom sax waaye jàpp nañ leen teg nañ leen <laughs> loxo aj màkk geeg jafe-jafe yi ci woon ak nguur geeg euh, bunt ba mu gis euh, démb ak tey macha allah fexe nañ daal ba fukk ak juróom-ñaari roplaan ba woo fukk fukk ak ñett yëpp waa Flynas la xeetoo ci Arabie Saoudite te it fas nañ yéene mu demee ni ba keroog njeextalu aj gi di ñaan borom bi jàppale ba ujaaj yëpp aj ci jàmm dellu si ci jàmm Abdoulaye Diop a nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital geeg may sa mbay ci kanam tuuti pencu geeg RFM ñu waxtaanee rek àll bi diggante sàmm ak béykat toujours problème benn bi ab Ablaye <laughs> euh, pël yi dugal na samay nag ca samay tool lekk nañ ko et cetera déet du toolam yoon wala jaar nees mën a def ba ak yoonal am ci àll bi ba ku ne yam ci activité économique ci du yàqal kenn dara maanaam ci gàttal nees mën a def ba kar seytaane ci boobu diggante ci kanam tuuti lay doon ak